love. ngi sant borom bu tedd bi subhaanahu wa taala di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel yàlla nañu bàyyi xel yàlla ci ay ndigalam ak i tereem loolu moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi waaye maa ngi moytuloo sama bopp di leen moytuloo mbokk yi tooñ mbokk yi tooñ bàkkaar bu rëy la jikko ju ñaaw la day lekk ñaawte fii nit di jur ak noonoo diggante nit ñi di ja di di jaxase dund gi di yàq dund gi ba nit ñi nekk ci fitna tooñ baaxut mbokk yi xeet tooñ yëpp bon tooñ yàlla ci yées tooñ sa bopp ci la ndax saa booy mooy yàlla yaa ngi tooñ sa bopp ndax lu ci nekk ci aw tiis yow lay dal boo lëggee yow rek lay wàññi waaye bokk na ci tooñ yi gën a mat moytu mbokk yi tooñ sa moroom jaam moo xam da koy tooñ ci jëmmam moo xam da koy tooñ ci alalam wala da koy tooñ ci ab deram ba yonent bi salaam bi wax ne sunu boroom nee na dafa xaraamal ci boppam tooñ kon bu leen tooñante kon day bañ kenn tooñ si waroomu jàmm jël dara ci àqam ci jëmmam ci njabootam ci alalam waaye ci ab deram yonent bi wax ne képp koo xam ne tooñ na mbokkam fii ci àdduna na ko lijjanti balaa bis penc nee na bis penc xaalis amu fa bu ñuy joxe waaye aw yoo fa nekk saa boo tooñee sa mbokk lijjanti ko ba faatu na nga xam ne tooñ googee du rees mukk bis dana ñëw ñu taaj la taaj yóbbu salaam ne bu yomal xeemee jaam bu ne dañ koy samp ci kanam jaam ñëpp am kuy woote ne képp koo xam ne diw mii di doomi diw amee la na la àq ñëwal nee na ñu ñëw ku ñëw jox la sàq bu nee ba aw yiwam jeex wala amatu yiw ñu jël ci ñaw ñaawtee fi ñam doon tooñ sëf ko loolu mbokk yi mat naa moytu moo tax nit danay def lu baax waaye tooñ tax lu baax la du feeñ bu fii ci àdduna kenn du ko gis ndax tooñ ya bu dee yomal xiyaam nag danañ jël yu baax yi mu defoon fayee ko ñoom doon tooñ mu kon lu ma ta moytu ñu bàyyi xelit ne lu nit am am doole wala lu mu bari bari pexe wala lu mu mën a mën a lëntal bay tooñ nit ñi bu mu jàpp mukk ne tooñ gi bu ko nit ñi gisut rëcc nga tooñ du rees mbokk yi euh, ñu bàyyi ko xel baax a baax faaw ñu xisaab gi faaw ñu bëggal ko tooñkat bi ak ki mu doon tooñ yomal xiyaam danañ taxaw ci kanam seen borom yàlla atte leen ci attewukaay boo xam ne fa la maandu yem foofu kenn du fa tooñ kenn foofu it amul kuy dox ci diggante bi di lijjanti foofa neexale neexale ngir mucc amu fa euh, shahadatu toujours mooy seere loo xam ne xam nga nu dëgg lijjanti ba jàll amu fa dëgg rek fay am ndax boo demee cër yi nga doon jëf mooy yàlla di ci tooñ cër yi ñooy taxaw di la seere ci kanam sa borom ne bi sàngam waxtu sàngam ci barab sàngam def nga nàngam boobaa lay jeex loolu mbokk yi nañ ko teg ci suñu kanam suñu borom nee na bul jàpp mukk yéen islam la waxal waaye julli yépp dugg nañ ci biir yàlla daa daa bay daa yëgut tooñkat yi ndax nit nekk di tooñ di def lu ko neex mu mel ne dugg jig na ko mel ne wàññiwu ko dara borom bi nee na déedéet yàlla jublu yeexele bis ba nga xamee ne kenn du mën a euh, tëj say bët bët yépp day xulliku ndax njàqare lu metti bis ba leen di nekk képp koo xam ne mbugalu la fii ngir sag tooñ xamal ne sa mbugal daan nar a gën a métti bu yemal xame ku ñu mbugal ci àdduna nag tooñ nga jeex bu yemal xame nga mucc waaye koo xam ne dafay nekk di tooñ te tooñ nga mel ne da koo jig nañ bàyyi xel ne jigu ko borom bi nee na bis la koy négee soo ak ci bis booba su boobaa dana xam ne tooñ baaxul tooñ yonent ay salaam nee na ay lëndëm rek rek lay juula jàmb yomal xame kon mbokk yi nañu moytu tooñante te bare na lool ci réew mi nag waaye nañu jàppalante it nag ci lu baax te jàppalante ci moytu tooñ xeet tooñ yëpp ab wërta tuan, wërta setan ñuy togn wërta bëgg ak togn sa bo yëgee ni togn amna rek munkar la xamal ni munkar la te munkar nak yonent bi islaam na dañ ko wara dindi ku mëna wax bam dañ waxal bam jeff dañ ku mëna jëf bam dañ jëfal bam dañ koku mënut na la metti ci sa xol kon sabu de déggé ne ñi ngi tooñ ay nit ci seen alal ci seen der ci seen euh, jëm nga melne sa xol da ca sedd na nga xam ne yaa ngi ci nga xam bu ñi mbugal ka togn dañ la mbugalale boo ca mënee waxte waxoo ca bu yemal xaamee dañ la mbugal ndax da ngaa noppi ci mun kar mun ko wut si te noppi dañuy wax ne euh, dëgg ku ñu war a waxte waxoo ko ki ko def saytaane su muuma la saytaane da mënta wax waaye saytaane la asaakitu an alxaqi cheytaanun axras kon ñu bàyyi xel baax a baax loolu moo taxit képp koo xam dañ lay yilif di la digal loo xam ne ak tooñ la war a bañ kenn amul sañ-sañ topp nit ci loo xam ne yàlla da koo tere tooñ yàlla da koo tere moo tax ku lu ko mën a digal da nga war lànk buñ la ca loree lu ñu mën a loree boo lëggee muy aw yiw waaye wari topp kenn ci mooy yàlla te tooñ mbokk yi mooy yàlla la te léeg-léeg nag ñuy digle ay tooñ ay nit di topp ndigal la jàpp na ci li ñu war a nekk lañ nekk fekk tooñ rek la ku la mën a yilif ak lu mu mën a yilifee bu fekkee lam lay digal ak tooñ la bu ci topp bu ci ànd ndax yaa ngi mooy yàlla boo ci àndee te boo liggéey borom bi dana mbugal ka la ko digal waaye dana la mbugal yow itam ñu loolu mooy tooñ ndax yàlla tëkku na tooñ wax na ne tooñkat day du taxe borom bi nee na tooñkat yàlla bëggu ko subhaana wa taala nee na yàlla du gindi ab tooñkat yàlla dana alak tooñkat yi yooyu yëpp nag kon war naa tax ñu bàyyi ko xel te jéem a rafetal suñu dund jéem a lijjanti suñu bopp la bis ci ñëw kuy def ñun lu baax lu ne fexeel ba lu baax loolu bu ko yàq waaye lu baax loo mën a def boo ko booleeg di tooñ nit ñi tooñ sama moromi jàmm boo léegi du la amal njëriñ te ci fii ci àdduna yi dana tax yu baax ya ngay def kenn du ko gis nag nit day def lu baax yu bari waaye tooñ gam ko booleel tax na yu baax kenn du ko gis bu yomal xaamee du ci am aw yiw yontu ay salaam noonu na sunu boroom day danay bay bayal ab tooñkat waaye du ko bàyyi dana koy bay bayal nag waaye bis bu ko jàppee mu xam ne yàlla jàpp na ko mooy li ba wax ci alxuraan ne wa kadaalika axzu rabbika idaa axzal quree téyeeg suñu borom jàpp ko suñu borom bu rek ñu xam ne jàpp na la bari waa ne tooñkat yu fi yàgg jaar mbokk yi bari doole loolu ci àdduna dëkk du tooñ nit ñi waaye fañ mujj baaxul loolu nag mooy mbirum bépp tooñkat ba yalla waxe ci mbirum ña doon def mbirum ngor jigen ca eh, jamono yaronte yalla lut alayhi salam na yalla wëlbatee kaw ci seen suuf ba mi jeexal aaya ba da ca tek ne wa hiya min az-zalimin bi baid li nak ab kat fu meuna nek na xamne mugal mbugal mu melni ma ko raw sooyula kon waxtu wu ne mën naa ci kaw jami nañ ko bàyyi xel baax a baax yutoo islaam waxoon ne na nga dimbulé sa mbokk bu tooñee ak buñ ko ben way ne ko ah, mbokk muñ de koy dimbulé dañuy taxaw ci wétam and ak mom te loolu mooy li jaadu saa bu ñu tooñee nit nga xam ko loo ca man def ko boo mënee wax ba mu dañ waxal ba mu dañ tooñ dañ boo mënee jëf ba mu dañ jëfal ba mu dañ boo ko mënut sa xol nag naqari ngay ñaan yàlla yàlla teggi tooñ googu waaye boo mooy leen yëgoo dara mel ne sa yoon nekku ca wala sax mu neex la xamal ne yaa ngi ci biir tooñ gi boo ëllëgee dañ la bëgg a laale loolu waa ji ne ko waaye daal ab tooñkat moom nan lañ koy dimbalee mu ne da ngay téye ci loxoom ne ko yaa tooñ moo tax mbokk yi tooñkat yi lañ leen wax dëgg képp kuy tooñ nañ ko xamal ne ko yaa ngi ci tooñ te lii ngay def boo ko bayiwut du la jariñ fi dana la alak fii ci àdduna alal balaxira waaye nopp ci jaaduwut nañ ko bàyyi xel baax a baax loolu ndiglu yonent bi salaam te moytu ab tooñkat ak ñu ku tooñ nit bu ñu ko xasee tooñ saa bu ñaanee yàlla yàlla nangu ñaan donte bi la sëriñ bu mag bi rawatina ba muy ñi nga xam ne suñ ñaanee yàlla mu nangul leen boole woon na ca kadalika al mazlumu mutlaqan walaw yunsabu lil kufri kama anhum raw ab tooñ kuñ tooñ bu tàllalee loxoom yàlla na ko yaa bi lépp lu mu ko ñaan ca ka ko tooñ yàlla nangu ñaan ko donte aji tooñ ji kiñ tooñ ab yéefar la kon rawatina tooñ ab jullit buy góorgóorlu ci baax nga di ko tooñ loolu mbokk yi wóorut nañ ko moytu am na ko waxoon ne bul jàpp mukk ne ngelaw jaam bi bu la yàlla joxee doole na nga ki jaamu yàlla waaye bu ci tooñ nit ñi na nga xam ne tooñ de ak mu jëm réccu rek la tooñ ak mu jëm réccu la yow mi tooñ yaa ngi tëdd nelaw jàpp ne ngi ci jàmm ki nga tooñ ma ngay xoole di ñaan yàlla yàlla ngi dégg ñaan nga te yàlla dana ko dana ko nangu li muy ñaan kon nañu musal suñu bopp ci mbugal musal suñu bopp ci ay toppaanga yoo xam ne bu ëllëgee mu topp ñu fa mu yéeme du baax lu mbir yi bari nag nañu xam ne ay jullit lañ nañu xam ne dañuy faatu fi dëkkuñ fi te bis ci dana ñëw léeg-léeg nag nit ñi def jëfin woo xam ne day mel ne gëmuñ yàlla gëmuñ ne bis ci danaam waaye bis penc wérante mbokk yi anna saata la aatiyatun laa rayba fiiha suñu borom moo ko wax de bis buy ñëw la nañ ko sóoraale ci dund képp ku ñu jëfalanteel ku ñuy jaxasoo nañ ànd ak yow ci loolu soo nekkee ci dëgg nañ nangu ne ci dëgg nga nekk waaye soo nekkee ci lu dëgg nañ la wax ne nekkoo ci dëgg loolu mooy li yàlla bëgg bu ko dee ba ëllëg yow sa yoon du ci nekk waaye léeg-léeg musiba am sa yoon nekku ca waaye sëf la ca bàkkaar ndax dañ caa dañ kaa ànd wala dañ kaa nopp te war a ci war a noppi yàlla na yàlla boole dimbale